Badiane Aïda Ndaw waaw ah, seen bàjjen la maa seen bàyyi doomi ko doo wël la waaw ah, xanaa sant yàlla rek wéer a wéer a wéer jul ci yonent bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaari waajur wax dëgg yàlla góor gi moom kenn amul fayam góor ku baaxoon la masha Allah ñeme njaboot waaw baax na ñeme na njaboot jàng noo la leen lëggéeyloo na leen wax dëgg yàlla kenn xamul fayam xanaa ñaanal ko yàlla fayal ko boppam waaw gune yi nag xam nañ ci ñoom yaakaar wax dëgg yàlla ndax fam tegoon tànkam gune yi fa lañ teg seen tànk yi kon nag ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla ci yàlla kattama baaxam yal na yàlla mottalil seen i muraado yaa rabbi yàlla mën na ko yàlla na ko def yaa rabbi waaw ñun daal mënuñ la kontaan waaw lii waaw kontaan na si li Mountakha Sakho doxalee nit kontaan nañ ci bu baax a baax macha allah yal nañ ko yàgga man te yàgg koy defal yaa rabbi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci barke yonent bi kontaan daal doo raw kontaan <laughs> bég naa ci xale yi wax dëgg yàlla macha allah wallaay <laughs> taarkalla macha allah kontaan naa ci bu baax a baax yàlla na yàlla fayal leen boppam gën ba ca kaw mu leen boppam yal nañ ko gétti far nag ca taas barkeem liggéey ndey wala lu leen seen barke bàyyi yaa rabbi lépp luñ man ren yàlla nañ man déwén lu ko ëpp tam ànd ak wér ak wér la ñu gunge njaboot gi bañ ñeme yaa waaw te leen xen bi bañ xattan ko def leen kem def leen kemal barke yalla bu yaakaar yàqute yàlla bu yaakaar tas yaa rabbi dana seen i moraado mat kontaan bu baax man de wax dëgg yàlla sama cër bi jox nañ ma ko ba mu mat moom maay seen bàjjan de waaye nag wan ma nag yow mi suñ kilifa nga wax dëgg yàlla jox nañ ma cër bi góor muy jigéen nag ñoom ñëpp nag waaw góor a jigéen maa ndaw ma bàjjan lañ ma def jox nañ ma ko de wax dëgg yàlla maa seen bàjjan te jox nañ ma cër bi kon nag du def lu gërëm leen sant leen macha allah waaw loolu de laa xamoon lu may wax ah, waaw kay